Allez, plus que 7 minutes à tenir, 7 minutes au temps, 6 minutes au temps réglementaire pour les, les Ivoiriens. 6 minutes pour forcer le Gastar du côté euh, ivoirien, du côté nigérien plutôt. Le corner avec Moses Simon, le premier poteau et le renvoi de Gisley Conan. Ce sera un nouveau corner euh, pour. Euh, Voilà. Et puis je vais en Terre aussi, qui se prépare à faire euh, son apparition sur la pelouse. Le troisième partenaire du Nigérian à l'espace de minutes. Merci. Sera au héros quoi qu'il advienne. Aïna Chou, au corner. Bien tiré. Non, pas du tout. Pas du tout. touche de Zen Sanoussi, la tête de Rufus Seko, Onyeka qui la surface. Voilà, Aina, Victor Osimhen qui dévie pour Aina Cho. Aina Cho qui le sort. Fofana, le centre de la Aina contrée. Ça va revenir avec euh, Aina Cho qui la boîte. Le renvoi de la défense, Simon et qui a certainement envie de baptiser la pelouse. Il y a deux changements qui se préparent du côté euh, ivoirien avec les entrées en jeu d'Ibrahim Sangaré et de Kafou. Ça, c'est euh, la sortie de Victor Osimhen. Ça, c'est un événement. Ah non, finalement, ils ne sont pas apparemment. Ah oui. C'est. Euh, qui est là et Zaidou qui sortent qui vont céder leur, leur place à ouais. Internet Mofi. Internet Mofi à Olouaïsou, c'est ça. Rosé. Alibo, un milieu de terrain et un attaquant. Là, l'entraîneur. L'Iran va tenter le tout pour le tout et la réaction derrière de Enas Faye qui va sortir Seko Fofana. Même sur l'écran. du code sélectionneur également qui va finale et en finale, même en huitième de finale face au Sénégal, il y aura son penalty lors de l'opportunité Thiobi. Il revient de très loin lui aussi. Son carton, il a refusé de porter sur la, la Serbia. Ça, c'est le, le nouveau règlement. Lorsqu'on fait un penalty, on profite de cette agression. On revoit le but. le centre Tadinga et le geste acrobatique pour Sébastien Allaire qui a connu la maladie le cancer on le rappelle s'est battu et il a la chance de revenir dans le haut niveau c'était pas évident pour lui waaw doo ma doo ma déglu rek affaire bi son passage en Angleterre il revient à Dortmund là on lui diagnostique un cancer il se bat contre le cancer. il a réussi à, son combat. il revient avec, euh, euh, avec Dortmund. Il revient également avec la sélection pour être euh, voilà, un homme décisif. Il y a de la pression dans la loge présidentielle de président Ouattara. Ah, <laughs> xale yu xew si année bi yëpp solo bi sax nii. macha allah. kon dinañ leen xam ni kii tëdd si jàmmalaay mooy Muhammadu Rasulullaay amul foto Iisaa ibnu Maryam mooy buntam mooy taawam moo doon Jésus démb ngeen di dégg yàlla jël ko Jérusalem yéegal ko naka dinaa la boole si beneen wàccuwaay kuréelu Mahdi yu te boo ñëwee moom moo demandé woon doon se doon surgal ak seen te yàlla Iisaa woon mais dafa ñëw yàlla def ko muy taawug Seydina Limaam mu ne ko nag Seydina mu ne nag kalaa yegg si si man dina jaar si yow ba pare moo waral appel bii ñuy ouverture bi di Cambérène deuxième jour bi tey la taxawoon woo ji aji bu danga yàlla yaa maxsaral insi wal jinni ne inni rasulullah ilaykum kon ñu ngi jéglu aji bo daayalaay yaa maxsaral insi wal jinni inni rasulullah Muhammad rasulullah nabi ñu màggal sayyidina Muhammad waay sayyidina Muhammad هذا مصباح كل قدر تمادس دون لا يكاد ولا ليس يدين رجع تفيد مدرسنا محمد لا يبقى سيد كل جبا sama nom de la laaj léegi mawlid nasika adi min surar bi yawmin wasiyaw ma ba ma doy ma way ngir ngir ñaar ñi ndeysaan Seydina Muhammad sëñ Bamba nee na alfasaati turam bi salaam ma doo waaw yonen wala si bi nag waaw te yaaru sama turandoo nee na maa mu commencé nii rek. junior junior dama doon la bàyyi xel na ñëw ci bébé bi tuuti. Assane day wel yaawa woote bi. Assane jàmbaar mu bàyyi la rek nga woote macha allah ndax rek mënta ñàkk euh, woote bi mënta ñàkk dama dem ba si mun ba mu am dimbali ma rek day dem bu dee benn sax bàyyi ma ko fii lañ mën a yem rek dafa xam ne foofu la fii la ñuy yem. sunu xol yi feex ñu àndandoo dëkkal la mu dañul doy. ku daañu doy day sax day neex sunu xol yi feex